doo xam lu di taalibe doo xam lu di taalibe da ngay wax ni jullit laa da ngay wax ni jullit laa fekk nga sa yaari waajur di moom ndax da ngaa fekk sa yaari waajur di moom taalibe yi taalibe gi taalibe gi it nga fekk sa yaari waajur bi nga fekk sa yaari waajur rek nga ni murit laa rek nga ni murit laa jéemu laa xam luy tarbiye bi jéemu laa xam lu di tarbiye xam luy diine jéemu laa xam luy diine jéemu laa xam luy lislaam jéemu laa xam luy lislaam xanaa rek judd naa ci lii moom laa rek xanaa judd naa ci lii moom laa rek loolu nag koo xam ne yàlla jox na la njaboot. koo xam ne yàlla jox na la njaboot. war ngaa ba génne loolu ci ñoom. war ngaa fexe ba génne loolu ci ñoom. alxuraan di jëkk ci seen i dënn. alxuraan di jëkk ci seen i dënn. ñu xam tawxiid. ñu xam tawxiid. nga xamal leen mabaadi u diine. nga xamal leen liñ tàmbali ci diine lépp. te di ko jëf te ànd ci ñoom. te di ko jëf ànd ci ak ñoom. kon nag ñu ñaan nga xam ñaan li nga xam ne moom la. góor-góor wax. ñoo ngi ñaan mi nga xam ni. nee na noo ngi ñaan yàlla mi nga xam ni. laa yaxfaa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. dara nëbbuwul ci kanamam ci asamaan ak ci suuf. laa taxfaa alayhi xaafiya. te dara mënta nëbboo nëbbu it ba nëbbu ci moom. ñoo ko koy ñaan. ñoo ngi bi rahmatihi allati wasi'at kulla shay. ci yërmandeem ji nga xam ne it dañ na lépp lu mën a doon. réew mii. réew mu indi ci xéewal. mu indi ci xéewal. indi ci naataange. andi ci naataange. jële fi bekkoor bii fi nekk. jële fi bekkoor bii fi nekk. te mu bañati fee dikk mukk. te mu bañati fee dikk mukk. ak jullit yëpp. ak réew jullit yëpp. ñu boole leen ca. nawet bii nu jëm. nawet bii nu jëm. yàlla barkeel ko. yàlla barkeel ko. mu dikk ca waxtu mu war a dikk. mu dikk ca waxtu mu war a dikk. bañ bañ am yenn rëq-rëq. bañ a am yenn rëq-rëq. ba sotti na mu war a sottee. ba sotti na mu war a sottee. nga noo ngi ñaar itam. ñeneen ñi nga xam ne. ñeneen ñi nga xam ne. dañuy liggéeyee leneen. dañuy liggéey leneen. ni ki ak tujjaar. ni ki jaaykat yi. wasanaaw. ak borom métier yi. wa arbaabul mawaasi. ak borom jur yi. wa ashaabil mihan. ak borom yeneen métier yi nii. ku ci ne. ku ci ne. da ngay la ngay yëngutu. yàlla defal la ca barke. yàlla defal la ca barke. defal la ca aw yiw. defal la ca aw yiw. ba loo ca doon séen. ba loo ca doon séen. nga am ko ca. nga am ko ca. innahu samiun mujib. yàlla nag mi ngi dégg te mooy tontu. asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. wa ala xaatami al anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baadu. ñun bokki jullit yi ñun bokki taalibe yi Hm. ñu ngi dikkati di fàttali lan ngaa fàttali di ci jiitale sunu bopp li ñu jëkk moo di bis booba li tax bis bee jóg bis bi yaari sunna ñu ñu faral ba fee nekk ba cee nekk muy julli bi ak tabaski yi li ñu jëkk moo di bis bi ak li ci aju bis bi ñaari daf cee daje ñu ne li ñu jëkke moo di bis bi ak yi ci daje ndax bis bi ñaari daf cee daje julli gi julli gi ak tabaski yi ak tabaski gi te lu ak tabaski maanaam xar yi waaw te lu ci ne te lu ci ne sunna suñu faral la sunna suñu faral la te jëf jan du baax te day wut ak sunna te jëf jan du mën a baax ci lépp dafa daje tabaski yi nag. tabaski yi nag. lu tax ma mat di fonk. lu tax ma mat di fonk. dañoo wax ni siraat. dañoo wax ne siraat. bu yowmal xiyaamee. bu yowmal xiyaamee. dañ koy gàll ci kaw sawara. dañ koy gàll ci kaw sawara. te siraat lu muy firi aw yoon rek lay firi. te siraat aw yoon lay firi. yoon woowee nag. yoon woowee nag di siraat. dafa wuuteeg ñu nu xam fii. dafa wuuteeg yoon ñu nu xam fii. ndax dañoo wax ne. ndax dañoo wax ne. moo gën a sew ab cunkóor. moom siraat moo gën a sew ab cunkóor. moo gën a ñaw jaasi ja gën a ñaw. moo gën a ñaw jaasi ja gën a ñaw. te dafa am ay xur ak i tund. te dafa am ay xur ak i tund. te day baj baj yi itam di yëngu. te day baj baj yi itam di yëngutu. te yaari kër ya fa nekk. te yaari kër ya fa nekk. goo ci jëm rek. goo ci jëm rek. ci moom nga yow soog a dem. ci yoon woowu di siraat ci nga yow door a caa yegg. ñu wax nag ni. ñu wax nag ni. xasrimu baxaayaakum fa innaha ala siraati matayaakum. mu ne kon na ngeen rëyal seeni tabaski ndax ci ngeen di war jéggee ko siraat boobu. kon loolu moo tax. kon loolu moo tax. mu mat a fonk. mu mat a fonk. di ko baaxal. di ko baaxal. te di ko def yu mag. te di ko def yu mag. tey it yaakaar naa ne. te itam yaakaar naa ne. koo xam ne bisu tey bii. koo na ne bisu tey bii tàmbali nga koo fàggandiku tàmbali nga koo fàggandiku ba muy del si ba ba nga jël si waat déwén sa borom dana ca dimbali sa borom dana ca dimbali waaye nag rek ba xam ne weeru yegg si na waaye nag ba xam ne weeru yegg na ah, nga soog di kër kër yi nga door di kër kër yi day tax rek na ko bëgg dina mën a amee day tax rek na nga ko bëgg dina mën a demee hmm. kàbbar yi nga xam ne dañ koy wax takbiraatu ayyaami minan kabar yi nga xam ne itam dañ koy wax moom ñu di ko wax takbiiratu ayaal mi nan moom ngeen di ko def moom itam ngeen di ko def buñ jullee tisbaar tey jii buñ jullee tisbaaru tey jii lay tàmbaliku lay tàmbaliku ci ginnaaw julli ci gannaaw julli farata bu nekk ba ci suba bisum ñeenteel ba ba ci suba bisum ñeenteel ba kabar yi nag kabar yi nag danañu wax allahu akbar danañu wax akbar allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله أكبر الله أكبر laa ilaha illa allah walil hamd laa ilaha illa allah walilahi hamd ak neneen noo ko waxee nag rek ak neneen noo ko waxee rek booy mhm. boo kàbbar ñetti yoon rek soo boo nga kàbbar ñetti yoon rek laa ilaha illa allah wallahu akbar walilahi alhamd laa ilaha illa allah wallahu akbar walilahi alhamd mhm. loolu it ngeen ngeen di ko def loolu it ngeen di ko def ndax day def loo xam ne boo ko defee nag bala nga koy def mu delsi di def ci déwén sa ndax loo xam ne boo ko defee ren bala nga koo defoon fii di déwén dees koy mën a fàtte dañ koy gaaw a fàtte moo tax dees ko fàttali moo tax ñu di ko fàttali ngeen farlu itam ci topp yàlla na ngeen farlu itam ci topp yàlla ndax dangeen léegi ñu jàng ci xutub arab bi ndax di ngeen léegi li ñu doon jàng ci xutub arab bi yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum mu ne yéen nit ñi na ngeen jaamu yàlla seen borom waxit ni ittaqillaa haysu kunt moo waxit ne na ngeen ragal yàlla fu ngeen mën di nekk wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut mu ne koo xam ne gëm nga yàlla gëm yonent ba gëm bis bu mujj ba itam na ngay wax lu baax mbaa ngay noppi loolu moom la xutbab arab bi ci ci lim ci wax ci la loolu bokk loolu bokk na ci li nga xam ne xutbab arab bi ñu doon jàng léegi ëmbaale na ko waaye ñëpp da koo déggul nag moo tax ñu di ko wax ci wolof rek waaye nag ñëpp da koo déggul moo tax ñu di ko wax ci wolof moo tax lii ñuy dolli ñu di ko si moo tax lii ñuy dolliwaat bu ñu defee xutba bi ba noppi ñu di ko kon du ko ngeen farlu ci julli yu juróom. na ngeen farlu ci julli yu juróom. te di ko def ca waxtu ya nga xam ne. te di ko def ca waxtu ya nga xam ne. ca lañ ca taamu. moom lañ ca taamu. te di jiital ak laab. te di jiital ak laab. laab nag buñ koy wax laabu ndox a tax. laab nag buñ koy wax laabu ndox moo tax. Mm. ndax dañoo wax ni. ndax dañoo wax ni. maa laa yatimul waajibu illaa bihi lépp loo xam ne lii lu war da caa abi fi léegi defoo ko lu war loolee du mën a mat foofu waajibul. kon loola it lu war la. moo hmm. tax laab gi war. moo tax laab gi war. te julli gi itam. te julli gi itam. dafa am waxtu. dafa am waxtu. inna salaata moo alal mu'miniina kitaaban mawquutan. mu ne jullit ci wa ah, ah, julli ci jullit yi dafa nekk ay waxtu yoo xam ne ay horaire la yoo xam ne dafa am waxtu yu ñu koy def. Hmm. Hmm. te boo jullee ci njëlbéenu waxtu wi. te boo jullee ci njëlbéenu waxtu wi. julli nga ci ridwaanullaahi. julli nga ci ngërëmul yàlla. boo jullee ci digg waxtu wi. boo jullee ci digg waxtu wi. julli nga ci rahmatullahi. julli nga ci yërmande yàlla. soo jullee ci mujj. soo jullee ci mujj. julli nga ci afullahi. julli nga ci njëggalu yàlla. Ah, te julli. te julli. dañuy wax ne yowmal qiyaam. dañoo wax ne yowmal qiyaam. su bis penc ba. su bis penc ba. moom la ñuy njëkk a seet ci mboolem topp yàlla yi. topp yàlla yëpp julli lañ ci njëkk a soo xamee ni yeewal soo xamee na yéwén na ñu ci def yëpp yàlla mën naa def mu yéwén yége def yëpp yàlla mën naa def mu yéwén waaye nag moom julli su yéwénut leneen lu dikkit leneen lu dikkat it dootul mën a jàpp dootul mën a tee jàpp te xam ngeen ne buur te xam ngeen ne buur bis bu dee feeñ bis bu dee feeñ atte ba mu jëkk atte atte ba mu njëkk atte bu am solo ci moom la bu am solo ci moom loolu la te julli gi te julli gi bu dul lool loolu lépp bu dul woon loolu lépp ginnaaw dane inna salaata tanha an alfaxshaai wal munkari gannaaw daf na julli ci boppam dafay tere ay ñaawteef ak yu ñu sib waaw ah, kon loolu rek jar na def ko kon loolu rek jar na def ko ngir nga mucc ci ay ñaaw ak yu ñu sib yooyu mm-hmm. fi toll itam fi mu toll itam li des ci tabaski yi li des ci weeru tabaski yi moo des ci atum jullit moo des ci atum jullit te lépp loo xam ne te lépp loo xam ne ngi koy santaane. dañu koy santaane. ci jullit. ci jullit. ak yoonu lislaam. ak yoonu lislaam. ci weeri jullit yi lañ koy war di seet. ci weeri jullit yi lañ koy war di seet. ndax gis ngeen bu ñuy woor. ndax gis ngeen bu ñuy woor. ci weeru lañ koy def. ci weeru koor lañ koy def. bu ñuy wori. bu ñuy wori. ci lañu koy def. ci lañu koy def. bis bii tey. bis ci kii lañ koy def. ci weeru tabaski bi lañ koy def. bu ñu demee ci tamxarit. ci tamxarit. ca la koy def. ca la ñu koy def moom demee ci gàmm. bu ñu demee ci gàmm. ca la ñu koy def. ca la koy def. kon nag. kon nag. bu ñu nee bu at mi dee. bu ñu nee bu at mi dee. nañu génne asaka yi. nañu génne asaka yi. nañ ko seet ci tamxarit bi di bëgg a teru. nañu ko seet ci weeru tamxarit bi di bëgg a teru. képp koo xam ne. képp koo xam ne. ab nga. ab jaaykat nga. wala yàlla jox na la dara. wala yàlla jox na la dara. loo xam ne xaalis la. loo xam ne xaalis la. na nga daal di seet. bu weer wi dee. bu weeru tabaski wi dee. na nga daal di seet la nga yor. na nga daal di seet la nga yor. ci lu jaragut. ci lu jaragut. ak la nga xam ne jar na di xaalis. ak la nga xam ne jar na ba noppi di xaalis. ak la nga dénkaane ca banque ba. ak la nga dénkaane ca banque ba. lépp nga seet ko. lépp nga seet ko. génne asakaam. génne asakaam. képp koo xam ne itam. képp koo xam ne itam. dangaa yor ab jur. yor ab jur. muy xar. muy xar. wala nag. wala nag. wala béy. wala béy. wala gëléem. wala gëléem. yooyu itam at mi dikk na. yooyu itam na xam ne at mi dikk na. waaw ñi nga xam ne nag ay béykat lañu. ñi nga xam ne nag ñoom ay béykat lañu. te xam ne seen mbay sotteegut. te xam ne seen mbay sotteegut. ñoom seen waxtu. ñoom seen waxtu. mooy bisum ngóob ba rek. mooy bisum ngóob ba rek. wa aatu xaqahu yawma xisaadi. mooy na ngeen génne àq eh, afaka jooju ci bis bi ne yaa ngi góob. te itam ku doon ku doon jox sa bopp. te itam ku doon jox sa bopp. kenn du ñàkk dara. kenn du ñàkk dara. kon sama borom mi nga xam ne mooy joxe. kon suñu borom mi nga xam ne mooy joxe. moo di almu'ti. mooy aji joxe ji. moo di almaani'u. te mooy aji tere ji itam. kookee. kookee. bu la joxee. bu la joxee. ñu ne lii maa la ko jox. ñu ne lii maa la ko jox. ci sama ngëneel. ci sama ngëneel. waaye kii maa ko xay. waaye kii maa ko xañ na nga ci fab lu tuuti ma ko na nga ci fab lu tuuti joxal ma ko loola war nga koo nangu loola war nga koo nangu te asaka yi te asaka yi bu dee xaalis bu dee xaalis te génne woo ko te génne woo ko bu yowmal xiyaamee wala wurus wala muy wurus ndax naq day ni buñ koy wax mm, zakatu naq day ni ndax bu ñu dee wax zakatu naq day ni nga xam ne mooy yaari kee yi mooy xaalis ak wurus bu fekkee doo ko génne nag. su fekkee ne nag da nga ko am te doo ko génne. li nga la laay jo la mu ca wax. da nga laay jooju la mu ca wax. wallazina yaknizuna zahaba. mooy ñi nga xam ne dañuy ndàmb xaalis ak wurus. wal fiddata. ak ak xaalis. wala yunfiqunaha fi sabilillahi. te duñ ca nangoo dund li ci yoonu yàlla. fabashirhum bi azabin alim. su nga leen bégal woon leen ne leen ñoom de danañ daje mbugal gu metti. yow ma yaxma alayha ca bis ba nga xamee ne danañu tàngal wurus woowee ba inaari jahannam ci sawara fatukuwaa biha ñu di leen i jë wa junubuhum ak ci seen i wet wa zuhuruhum ak ci seen gannaaw ñu leen wax ne haasa maa kanastum bi anfusikum daal leen di wax mooy la nga xam ne moom ngeen doon denc fazuqu maa kuntum nga xam ne dafa yor ab ki nga xam ne dafa yor ab te du ko génne asaka te du ko génne asaka bis baa bu bis baa dañ koy tëral fi barab dañ koy tëral fi barab woo jur gi. woo jur ga. dekkal leen. dekkal leen. seen i béjjën ak seen i tànk. seen i béjjën ak tànk. ñu mu tëdd si suuf ñu joggi ci kawam. mu tudd mu tëdd si suuf ñu joggi ci kawam. di dem ko dikk. di dem ak a ñëw. ba bañ koy àtte. ba bañ a àtte. te xam nga yowmal xiyaam. te xam nga ne yowmal xiyaam. bis ba yàgg na. bis ba yàgg na. maanaam bala ñuy agsi ci yow mu yàgg. amaana bala ñuy agsi ci yow. ba jur googu di la bàyyi mu yàgg. wax juróom fukki ji xam si ne alfa sanatin la wax ne moom la. ndax juróom at la wax ne moom lay doon. benn at yi te kenn ku nekk it. te kenn ku nekk it. yaay taxaw lay. yaay taxaw layal sa bopp. loolu mooy tax atte ba du gaaw. loolu mooy tax atte ba du gaaw. moom lay wax ni. moom lay wax ni. yow mii si neef lu dul noosu ashtaatan. mooy bis boobu nga xam ne kenn ku nekk yow ay génnal sa bopp waxal sa bopp. ngir amaalahum. ngir nga mën a gis la nga xam ne moom nga doon jëf. su ma yaamal misqaala zarratin. xam ne kii jëfoon nga dara lu toll ni tarab. xayran yarahu. te mu di aw yiw da nga ko gis. su ma koo xam ne kii itam jëf nga. xayma zarrati. lu toll ne sarat sarat moom ne tuuti béy niroo ko sang lañ. sharran yara. ci aw ay danga ko gis moom itam. kon nag loolu. kon nag loolu. ku mu nekk ci sa kanam. ku mu nekk ci sa kanam. war ngaa góorgóorlu. war ngaa góorgóorlu. te bañ a noppalu. te bañ a noppalu. niki nawet bi nga xam ne yéex na itam. niki nawet bi nga xam ne yéex naa ñu itam. noo ngi ñaan yàlla. noo ngi ñaan yàlla. mi nga xam ne dara tawu ko. mi nga xam te lu ne te lu mën na ko. te lu ne mën na ko. te nga ne lam lépp xaj na ci biiram. te nga ne lam itam lépp xaj na ci biir. ak yërmandeem. ak yërmandeem. mu defal na ci loo xam ne defoon ni ne mënatu cee am. mu defal na ci loo xam ne li defoon na ne mënatu cee am. te moom mën na ko. te moom mën na ko. ah te mën na noo dimbale. te mën na noo dimbale. ndax bu nu seetee. ndax bu nu seetee. barab bi nga xam ne moo gën ci kaw suuf. barab bi nga xam ne moo gën ci kaw suuf. muy makkatul mukarrama muy makkatul mukarrama alkaabatu nekk fa baytullaahil xaraam muy nekk néegu yàlla ba nekk fa mm, te jullit bu ne te jullit bu nekk ak foo mën a nekk ak foo mën a nekk bis bu ne nga jublu ko juróomi yoon bis bu ne nga jublu ko bi ci kaaba bi juróomi yoon yii fan di fan yi nga xam ne fa la nit ñi daje yii fan di fan yi nga xam ne far fa la nit ñi di daje barab boobee barab boobee mbay amu fa mbay amu fa te mosu fa amit te mosu fa amit ndax Ibrahima alayhi salaam. ndax maam Ibrahima alayhi salaam. ñu ko jëkk a tabax néeg ba. mi nga xam ne moo jëkk a tabax néeg ba. nangami junni at la. nangami junni at la. te ba mu yeggalee. te ba mu àggalee. la wax ni. la wax ni. rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin xayri si zaraxi. la wax ni yow suñu borom dëkkal naa sama njaboot gii ci xur woo xam ne wii amul mbay. inda baytikal muharrami. ci wetu sa néeg bii nga faw. rabbana li yaqumu salaata. ngir mu mën fee nekk di fajal afidatan mina naasi tahwi ilayhim kon na nga def xoli nit ñi ñu sopp leen ñoom ñëpp walbati ko jublu si leen warzuqhum min asamaraati te nga wërsëgal leen ci ay ay meññet laallahum yashkurun ndax yàlla ñu mën laa sant alhamdulillah yashkurun kon kon nag ginnaaw foofu moo mel noonu ginnaaw foofu di màkk moo mel noonu nanga mi junni at mosu faa am nanga mi junni at mbay mosu faa am te ña fa dëkk mosuñu faa jóg te ña fa dëkk mosuñu faa jóg te lu waay baax le boo sañoon yóbbu ko te loo baax lu waay baax le boo sañoon yóbbu ko màkk ah ka defal ñooñee loolee. ka defal ñooñee loolee. mën na noo defal sunu mbay mii. mën na noo defaral sunu mbay mii. <coughs> yàlla na nu ko defal. yàlla na nu ko defal. Mm-hmm. ah dafa am loo xam ne dama ko fàttaliku ci waxtu wi nuy baaw. dafa am loo xam ne dama ko fàttaliku ci waxtu wi nuy baaw. <coughs> mbaaw mi dafa yàgg lool mu tooy taw. mbaaw mi dafa yàgg lool mu tooy taw. réew mépp ko doon defit ko doon defit ni mu ko ko doon defee kilifa yit santaane ko kilifa ko ma fàttaliku nag ma fàttaliku nag xista boo xam ne xista boo xam ni yont yàlla Moussa alayhi salaam yont yàlla Moussa alayhi salaam mm, bani Israaïla dañoo mas a maral bani Israaïla dañoo mas a maral maru metti lool maru metti lool ñu tawat ko ko ñu tawat ko ko mu génn mu génn dem jabalu tóor dem jabalu tóor ànd ak ñoom ànd ñu nekk fa ñu nekk fa di baaw di baaw di toroxlu di toroxlu lu ñu xam ñu def ko lu ñu xam rek ñu def ko mu ta maroo ta dañ maroo ta dañ rek yonte yàlla Moussa ni sunu borom yonte yàlla Moussa ni sunu borom ñun de lu ne def nañ ko noonu ñu lay woo di la ñaan lu nu xam def nañ ko ñun daal lu nu xam def nañu ko woo nañ la lu ne dugg nañu ci te wuy te wuy woonu te taxul nga wuyooguñu mais mu ne ko nee na mu ne ko ab rambaaj dafa ne ci seen biir ab rambaaj dafa nekk ci seen biir moo tax nanguwuma seen i ñaan moo tax seen ñaan yooyu li muy bari bari nanguwuma ko mu ne ko. yonte yàlla Moussa ne ko. maa bëgg nga wax ma ko ma génne ko. damaa damaa bëgg nga wax ma rambaaj boobu kon ma génne ko. mu ne ko kon li may aaye ma ma def ko. kon mu ne ko kon li may aaye man far di ko def. su ma la nee diwa. su ma la nee diwa. rambaaje na laal man mel na ne maa la rambaaje ak moom. <laughs> ah te bàkkaar yooyu. te bàkkaar yooyu. moom la ñuy wax alkabaayir. te moom la ñuy wax bàkkaar yu mag yi. boobu benn rek la ci. rambaaj moomu benn rek la ci. te ñaar fukk lañu. te ñaar fukk lañu. ni ko sëñ bi waxee ci Munawir Sudóor. ni ko sëriñ bi waxee ci Munawir Sudóor wax ni kabaayirul asina ishrina badat dafa wax ni ah, ah, bakkaar yu mag yi nga xam ne moo yi ñuy mooy ñaar fukk la yu feeñ am man nuquluhum saxihatun hadat ci koo xam ne kii fa ñu koo toxale ci moom lu wér a wér la lii di ca benn rek lii di rambaaj gi di ca benn képp ma seetlu nag benn boobu ak fukk ak juróom-ñeent yi ci def yëpp ma seetlu nag benn boobu di rambaaj ak yeneen fukk ak juróom-ñeent yi ca def yëpp amu ci lu ñu bàyyi ñëpp amu ci lenn loo xam ne bàyyi nañu ko noo ngi def yëpp ba mat <laughs> kon na ni mën a amee lan bëgg kon bu ñuy ñaan yàlla it mën a amee lan bëgg na mu ñu dikkee na mu ñu wuyoo kon nag. kon nag. nanu maase ci tuub. nanu maase ci tuub. te gëm yàlla. te gëm yàlla. te ragal yàlla. te ragal yàlla. te jaamu yàlla. te jaamu yàlla. te xam ne yàlla rek mooy yàlla. te xam ne yàlla rek mooy yàlla. waaw. yàlla rek. ndax yàlla rek. mooy wax ne ni innani ana allahu la ilaha illa ana fa moom rek mooy sañ a taxaw ni man mii maa yàlla nu ngeen ma jaamu. Mm-hmm. wax ni inna haadihi ummatukum ummatan waahidatan wa ana rabbukum fa'buduun moom moo sañ a taxaw ne xeet bi wépp aw xeet lañu maa maa seen buur nañu ma jaamu. mu wax ni ana seeru annahu laa ilaaha illaa ana fattaquuni. wax yonent bi itam na nga leen xupp ne leen daal nañu ma jaamu te ragal ma. wa anna haadihi ummatukum ummatan waahidatan wa ana rabbukum fattaquuni. mu delloo ci waxati ne itam naka xeet bii de wenn xeet lañu woo xam ne wii maay seen borom nañu ma ragal. loolu yàlla rek ko sañ a wax. loolu yàlla rek ko sañ a wax. kon nag nañ ko wéetal. kon nan ko wéetal te jaamu ko te jaamu ko te gëm ko te gëm ko te mooy ci moom te mooy ci moom te xam ne li nu bëgg fii te xam ne li nu bëgg fii ci àdduna ak ci àllaaxira ak ci àllaaxira moo nu ko mën a defal moom rek moo nu ko mën a defan la nga xam ne moom lañ ragal foofee la nga xam ne moom lañ ragal foofee ak fii nu nekk ak fii nu nekk ci àdduna moo nu ci mën a musal moom rek moo nu ci mën a musal dafa am ñeenti noon yu ko seq te ku ci ne bokkut ak moroomam la koy fexeel te kenn bokku ci sa morom la loo koy fexeel an nafsu ad dunya wa shaytaanu laayin muy bakkan ak adduna. ak saytaane maal hawa ak bànneex. aiqatun anil muin. ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy gàllankoor nit ba du mën a yegg ci yàlla mi aji dimbale. an nafsu. bakkan nag. alquran daa wax ne inna nafsa la ammaratun bisooy. alquran dafa wax ne bakkan moom toujours day digal borom aw ñaw teef rek. saytaane. saytaane itam. te di am noonu. ab noonu la. Hmm, boo xam ni boo xam ne. day bewloo. day bewloo. Hmm, te noonu doom aadama la. te noonu doomu aadama la. inna seytaane lakum aduwwun fattaxisuhu aduwwa yàlla moo wax ne seytaane mooy seenum noonu yéen nit ñi na ngeen ko jàppee ab noonu da nga wax ci alxuraan fa bi izzatika mu di nga moom it seytaane mu gin ci teddug um, yàlla la wax yannahum ajmain ne ko sa jaam ñi dinaa leen bewloo ñoom ñëpp ndax mm. li nga xam ne sababu as aadama ndax li nga xam ne sababu sunnaam aadama te lañu ko alake ca lañu ko alage moo tax mu bañ doomu aadama loolu moo tax moom ku bañ doomu aadama di leen fexeel ba fu mu toll rek di leen fexeel mm. <laughs> adduna. adduna tegu. day ware. moom itam day ware. ki nga alquran ni. dégg nga alquran ni. fala taxurrannakum alxayaatu dunya. mu ne bu mu leen war mukk dunduk adduna gii. wa alxayaatu dunya illa mataaul ghurur. mu ne dara lu may ay ay bagages alhawa. bànneex topp ci. dégg nga alxuraan ni wala tattabil hawa fa yudillaka an sabilillah dégg nga alxuraan ni bul topp sa bànneex ba mu di la eh, réerloo ci yoon wi nga xam ne moo jëm ci yàlla kon nag yooyu ko xam ne ñeent yi ku nekk am lu muy liggéey ci kon nag koo xam ne kii ñeenti noonu yooyu ñu ngi la dar kenn benn noonu bu ci nekk am lu muy liggéey ci yow war nga koo xam war nga koo xam ba ba fàggandiku leen ba fàggandiku leen taalibe gi itam taalibe gi itam amu leen lu may moom. amunu lu may moom. ginnaaw yàlla ak yonent ba. ginnaaw yàlla ak yonent ba. ndax moo tax ku ne bàyyi cosaanam. ndax moo tax kenn ku ne bàyyi cosaanam. bàyyi fa mu dëkkan. bàyyi fa mu dëkkoon. ku ci xamoon dara sax ba nga dikkee da nga ni sëñ bi xamatuma dara. ku ci xamoon dara sax ba nga ñëwee da nga ni sëñ bi man xamatuma dara. te loola mu jar ko lool. te loola sëriñ bi jar ko lool. ndax sëñ bi daa wax ni. ndax sëriñ bi dafa wax ni. la waalima naasu maa huna. su fekkoon ne nit ñi xam nañu li ne fii. la baadaru ila talabihi. kon danañ gaaw ñoom ñëpp daw wut di di ko jéem a sàkk. walakin waaye nag lamma jahiluuhu ba nga xamee ne nga li fi nekk talabu xayrahu lañ dem di wuti leneen lu dul moom kooku nag ku yàlla dimbale kooku nag ku yàlla dimbale ba nga bokk ci ñooñam ba nga bokk ci ñooñam war ngaa góorgóorlu war ngaa góorgóorlu bu baax te sant yàlla te sant yàlla waaw ñu dee si ànd moom nag ñu dee si ànd moom nag moom sëriñ bi moo di topp ay ndigalam moo di topp ay ndigalam te moom du digle lu dul la yàlla digle te moom nag du digle lu yàlla digle rek bàyyi ay tere. bàyyi ay tere itam. la mu tere. bàyyi la mu tere moom sëriñ bi. la ndax du tere lu dul tere. ndax du tere dara lu may lu nekk lu yàlla tere rek. kon nag loolu nekk leen ci. kon nag loolu nanu ci nekk. ci nekk bu baax. nan ci nekk bu baax. Mm. te itam. te itam. wàcc lépp ngir lenn. wàcc lépp ngir lenn. sàggan ca loolee. sàggan ca loolee. ba loola faat la. ba loola faat la. ëpp naa def. ëpp naa def. àndul ak waa Ndugóor. ndax dangay àndul ak waa Ndugóor. waa Ndugóor. àndul ak waa Ndugóor. new raw la waa new raw la ngeen ci farlu bu baax kon nañ farlu ci taalibe bi bu baax jàpp ko bu baax jàpp ko bu baax hmm. te sëriñ bi de te sëriñ bi de am na mag mu ma wax ne am na mag mu ma wax ne nee na nee na képp ku may tëkkaleeg sa waay képp ku may tëkkaleeg sa waay xamuloo ma xamul sa waay xamuloo ma xamuloo sa waay joojee kooku nag kooku nag ku yàlla dimbale nga ànd ak moom ku yàlla dimbale ba muy sawaay nga ànd ak moom war ngaa góorgóorlu war ngaa góorgóorlu bu baax te bañ ne maa ngi dugg saxaar du ma yenn sama te bañ nag damaa dugg saxaar du ma yenn hmm. ndax ndigal yi mu digle ndax ndigal yi mu digle moom sëriñ bi ak tere yi mu aaye ak tere yi mu tere mooy saxaar bi mooy saxaar bi mooy safinatul amaan mooy safinatul amaan mooy gaal góolu waaye koo xam ne nag waaye koo xam ne nag ah da ngaa wax ne dugg naa ci te fekk bàyyiwoo nekkoo ci ndigal yi bàyyiwoo tere yi. da ngaa wax ne dugg naa ci gaal gi waaye bàyyiwoo ndigal yi bàyyiwoo tere yi. xamal ne nekkoo ci gaal gi. xamal ne nekkoo ci biir gaal gi. gaal ga dem na wàcc gaal ga dem na wàcc la. booy sa bagaas te dox. sooy boo nga yéen sa bagaas te dox rek. di tuddoo ak taalibe rek. di tuddoo ak taalibe rek. jébbalu naa. jébbalu naa. lu la nga wax. lu la nga wax. lu la nga jëf. lu la nga jëf. nga sukkandiku ko ci ñoom. te ki nga sukkandiku ci moom. waxut loola. waxut loola. jëfewuñ ko. jëfewuñ ko rek. te bind na. te bind na. wax na. wax na. jëfe la ñuy gis. jëfe la ñuy gis. ñu bàyyi fi li mu fi bàyyi. ba bàyyi fi li mu fi bàyyi. bind li mu di wax loolu. nga topp sa di wax mm, te. xam nga bind ko mbalax sama loxo may la. ñi nga sa am jëf lépp ci seen dundub àdduna. wala yaxsibuuna annahum yahsinuuna sanaa. te yaakaar ne nag li ñu nekk lu jub lu baax la. yàlla na yàlla musal ci loolu. yàlla na yàlla musal ci loolu. xale bi dañuy bëgg bi xale ba ñu béy ko. kon nag loolu lañ bëgg bu ñu ci yeggee ca àllarba beeg jàmm ñu dem ci béy. waaw mu ngi fii ci caaxu. Hmm. naka mbirum ndox mi ñu ci dëkk bi. naka mbirum ndox mi nga xam ne moom la ñu fay ci dëkk bi itam. alaaji xaalis ni mu koy toppatoo. alaaji xaalis ni mu koy toppatoo. wax na ma ne am nañu ci sàggan wàllu ci tey bi. amul njëriñ amul benn njëriñ. ñu ngi xam ne seen kilifa digal na leen ko. ñu ngi xam ne seen kilifa digal na leen ko. ak liggéeyal seen dëkk. ak liggéeyal seen dëkk. ak seen bokki taalibe. ak seen bokki taalibe. lii rek lañ ko def. loolu dama lañ ko def. amuñu ci benn njëriñ. amuñu ci benn njëriñ. kon nag. kon nag. li fay la ñu yëngatu bu nga xam ne bu weer dee nga fay ko ñu tolloog yenn ñeent fukki dërëm yoo xam ne bu weddee nga fay ko kenn ku ko boo ko fannoo itam yàlla dana la ko dindil kenn ku ne boo ko fannoo fas ko yéene itam yàlla dana la ko dindil waaye di jekk bañ naa la woon sàndar mënu waaye di jekk bañ ñeent fukki dërëm rek am na du ma bëgg a woo sàndar mënu ëpp naa def ëpp naa def te bis bu maralee te bis bu maralee ku la jaay ku la jaay bari bu dem ndox ku la bis bu maralee tool bi amul ndox ku la jaay bari bu ndox ci ñeent fukk ci ñeent fukk dañ ko jënd dañ ko daal di jënd loolu nag kon loolu nag kon war naa woyof nit ñi ñoom dëkk yooyu ci boor bu ne rek war naa woyof lool ah ba tey ah, ba tey loolu nga xam ne moom lañ ci daan aaye itam mu yu baaxul yooyu fi nekk mu yu baaxul yooyu fi nekk te xam ne sax ñun aaye wuñ ko yàllaa ko aaye te xam ne sax ñun aaye wuñ ko yàllaa ko aaye dañ leen koy fàttali ne dama leen koy fàttali ak di ko wax ak di ko wax hmm. moom itam moom itam léeg-léeg rek ñu ne feeñ na fi dërëb léeg-léeg rek ñu ne feeñ na fi dërëb xëy na sax ñu koy rëbb ñu ngi leen di def ci ñoom it la ko wax xam nga léeg-léeg ñu rëbb ñu koy def ñu ngi def ñoom itam la ko wax waaye ku ne da ngaa war a seet ci sa bopp. waaye kenn ku ne da ngaa war a seet ci sa bopp. nga yedd sa bopp. nga yedd sa bopp. te bàyyi ko. te bàyyi ko. bàyyi ko fi dugal. bàyyi ko fi dugal. kuy jaay mën ngaa jaay leneen lu dul loolu. kuy jaay mën ngaa jaay leneen lu dul loolu. waaye di làqu di jaay yàmbaa. waaye di làqu di jaay yàmbaa. ak i deret. ak i deret. ak i naan. ak i naan. ah kuy ci jàpp it. kuy ci jàpp itam. amul ci amul dara. amul ci amul dara. gis nañ ñu ngi si jàpp. gis nañ ñu ngi si jàpp. te loolu kenn fas yéene nekk dafa. te loolu ci la ñuy nekk faaw. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستحسنك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك وكل سلطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بحر ومن شر كل شيء شر إنك على كل شيء قدير اللهم اللهم لنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعوذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم آمين وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخلق غير المتابعة لفواهر وباطل في عظيمة وخلقنكم برحمتك وحر الرحيم lu ci lu ci ne lañ ko soxla woo ngeen bokk toog seet lu ci ne lañ ko soxla woo ngeen yóbbu ko ngeen yóbbu ko toppatoo ngeen ko toppatoo ngeen ko ba lu ca mën a am rek am na ba lu ca mën a am rek am na kon ndax ñu leen ci sant yàlla boole defal ndimbal yàlla na yàlla boole defal ndimbal loo ngi leen ci sant. yal na nu yàlla boole defal yal na nu yàlla boole defal ndimbal. mu wëlbatiku nag. mu ni mi ngi wëlbatiku nag. génn sama nga xam ni. ñoom la bokkal Cheikh Ibra Fall. muy doom yi. ak tët yi. ak taalibe yi. ñoom laa war a wax. ndax ñoom laa war a wax. ñoom la sañ a wax. nee na ñoom la sañ a ku ci dégg nag leneen. ku ci dégg nag leneen. loo xam ne bëgg nga ko. loo xam ne bëgg nga ko. wala yitteel na la. ci nga bokk. kon ci nga bokk. wante. wante. dama bëgg la dugg ci loo xam ne sama yoon nekku ci. nee na dafa bëgg te dugg ci loo xam ne yoonam ñëw ko tere. bi dana ko ihsaani l-mar'i tarkuhu maa laa ya'nihi. ndax dañu ne yonent bi nee na bokk na ci rafetul islaamu nit mu bàyyi lu ko amalul njëriñ. waaye nag. waaye nag. ginnaaw dafa wax ni. ginnaaw dafa wax ni. ad-diinu nasiiha. nee na diine laa biirante la. ci la di ma. ñu ne ko ñaan ak ñaan. alhamdulilah. mu ne xanaa ngir yàlla. ak yonentam. ak téere bi. wa aimmatil muslimin ak kilifay jullit yi wa ammatihi ak mboolem jullit loolu kon keneen ku ko dégg te bokk ci mu ni loola tax kon keneen ku ko dégg te bokk ci boo ci déggee loo bëgg a jëriñoo bay ba fab ko boo ci déggee loo bëgg a jëriñoo bu yeboo nga fab ko li muy dénkaane nee na li muy dénkaane te jiital ci sama bopp te jiital ci boppam moo di moo li tax sunu ba bindunu li tax mu nekk ca loola. wax ni. dafa wax ni. lu xalaqtul jinna. binduma nit ñi nii. nit ñi. lu dul ñu wéetal ma rek. maa ngi leen di nuyu. bëgguma ci yéen leen lu wërsëg. maa ngi leen di nuyu. bëgguma ngeen mag lekk. ndax maa yore wërsëg. maa yore kàttan bu dëgër. nanu farlu ci jaamu yàlla. kon nanu farlu ci jaamu yàlla. te wéetal yàlla. déglu tëdd yàlla. te gëm yàlla. te ragal yàlla. dafa wax ni. ndax dafa wax ni. ci ci jaamu leen seen borom. mu ne waxaat na ni itam na ngeen wéetal yàlla te bu leen ko wax ni itam yéen nit ñi ragal leen yàlla. wax ko ay yoon ci alxuraan. baamu ko ay yoon ci alxuraan. mu wax ni. mu mu ne ci gën a tedd ci yéen ci man de mooy ci ragal yàlla rek. xam-xam. néewul képp xam-xam a gën a tedd. ëpp ak judd. néewul ko ëpp judd a gën a tedd. néewul ko ëpp alal a gën a tedd. néewul der bu weex a tedd mbaa bu ñuul. benn ci gën a ragal yàlla rek moo gën a tedd ci man. kon nag. kon nag. waaw yàlla na ko sax kenn kenn. yonent bi sax teg na jën yi. dara foofu la li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa. nee na arab gënal teewul nit ku ñuul lu dul ci ragal yàlla. kon nan farlu ci loolu. kon nag nan farlu ci ragal yàlla moom. jaamu yàlla. ak jaamu yàlla. lu yitte yi bari bari. lu yitte bari bari. ndigalal yàlla dikkee. bu ndigalal yàlla dikkee. bàyyi te dem ca loola. nanu bàyyi loola te dem ca ndigalu yàlla. ndax sëriñ bi dafa wax ni. allahu akbar boo déggee ñu ni allahu akbar noonu kat wax ko balaa balaa bu waxee ni li nga doon baax na nee na bàyyi ko sa dem ci ndigalu yàlla nee na ndax bu fekkoon da nga doon jàng alquran mbaa nga doon sikkar mbaa nga doon julli ci yonent bi mbaa nga doon def leneen mbaa nga doon liggéey loo xam ne jëriñ sa bopp ak sa njaboot loola lépp. loola lépp. baax na. waaye boo déggee woote bi yàlla ba. dara baaxatul lu dul dem rek. def loola rek ba def ba noppi. sunu borom ba. sunu borom ba. waaw. Oh. dafa wax. yonent bi ni ko. yaa ayyuhan nabiyyu inna arsalnaaka shaahidan wa bashiran wa nadiiran nee na yàlla dafa yonent bi danu laay yónni yow yonent bi nga nekk ci nee na ci bindee ci di leen xupp ak di leen waar jadda boo xam noonu arsalnaaka illaa kaaffatan linnaasi bashiran wa naziran mu ne ko dama laa yónni ci mboolem nit ñi ngay waare ci xuppe bàyyiwuñ ci kenn loolu moo tax nii ma ma wax lii ma wax ma wax lii mu wax deme ko ci ñoom mu wàcce jeneen aaya joo xam ne da koo jagleel yonent bi da koo jagleel mu wax ko ni ko ni yonent bi na nga waar sa giir gi ak ñi gën a jege ci yow da nga lewatal saw yaram nag lewatal sa wàcce sa mbagg ci képp ginnaaw sama bopp ko ñu ba ñoom ñu ma tax ma nee na bu la moyee na nga wax ni génn naa ci li ngeen di ba aye jigi kër. nee na ba aye jigi kër. waaw woo oh, Fatima. dafa woo oh, nga xam ne ñoo gën a xaar. woo gën a abin ci bokkam. ñi ko gën a jege ci askan. ak ñi ko gën a jege ci leen aaye ji. li leen nag nee nag jëriñ jëriñu ma leen dara ci yàlla loolu moo tax. loolu moo tax. ma kon bokk yi. ak taalibe yi aju ci kër gi. ma war leen a wax loolu. ma war leen a jottali loolu. ndax léegi ñëpp ko bokk. ndax léegi ñëpp ko bokk. dañ ko beral ko beral moom aaye jooju. kon nag. kon nag. nanu farlu bu baax. te itam dafa am lu sëriñ bi wax ci ak xasida mu wax ni mu ni xamal ni rawante binde bi de ci xam-xam ak ci diine rek lay amee kon nag na nga muñ ci loolu wa gis naa yaxtulu man qad fadala danañ ci xam-xam ak diine la ko gën di gëne ذلك فاخر عند قوم فضلا waaye bi caagi nag gaa yu baaxoon ak maam yu baaxoon taxul kenn gën nee na loolu jëriñu dara nee na la xariir yu waxoon rek nee na xariir daf ni wan gis naa ci sa dund mi nit dóorul dara lu dul bisu sayam rek doomi sayam képp waaye du gën caagi nag la ëllëgam di jur nee na dóorul li mu doon rek la nee na ndam de gisu ko damoo ci ay yàq yu ko doon. mais nag képp kuy damoo da ngaa war a bëgg sa dund bopp waaye doo bëgg yàq yu ko doon. dama ko fee waxoon. nee na da ko fee waxoon daal ci. am ku ma sa dig. am ku ma sa dig. mu ne dafa am ñu doon wax naan daal yàq yu ko doon mës a wax. mu ne xanaa dañoo jàngal sóoratu Yaasin. mu ne xanaa dañoo jàngal sóoratu Yaasin. nit gàtt gàtt nee na ndax lu nit gàtt gàtt àlliwa. yaa ngi yaasin boog di ko déemoo. boo demee ca mujj. yàlla nga ni sa aw léebu foofa ni mu fàtte moom nit sax boppam. mu ne xanaa yàlla du mooy ki bindoon nit eh, maanaam nit waaye nit ki te fekk moom mu ku la xool. mooy fekkaat ku la kooku dundalaat ko ba mu doonaat. kon moo xam nag bindee ci ak nu ñu doon sosoo. léegi moom ab yàlla rek ko xarit rek ko wax. yàlla rek ko waxoon. alxuraan ko ci jiit. waaye alxuraan li ci bind bindee bi moom moo leen ko ci jiit. man ne moo bàyyi kenn ay yaxam ku ndox rek. bàyyi kenn ay yaxam ku ndox. maa mi kenn yaxam ku ndox. nee ma maa mi kenn it nee na ay yaxam ku ndox. fàttali li yàlla wax rek. dama doon fàttali li yàlla waxoon rek. ak la arab boobee waxoon rek. kon nag góorgóorlu leen ci bu baax. nee na kon nag ñu góorgóorlu ci bu baax. ñu góorgóorlu ci bu baax. te itam nit ñi. te itam nit ñi. dafa am loo xam ne. dafa am loo xam ne. lu mat la. ndax bi. ba mu nekkee Jolof. dafa woon nit ñi bis. dafa woon nit ñi bis. moo dem nekk ci dëkk bi na ñëw. ba ñu dikkee. mu ni leen. ngeen jaamu yàlla. na ngeen jaamu yàlla. ngir kat li may jaamu sama bopp laa koy jaamul jaamulu ma ko kenn te bu nu demee yomal xiyaam danaa toog ngeen toog sunu borom ni ma sunu borom ni ma jaam jaam yi duñ doon ci yow jaam yi duñ doon ci yow ma wax ma wax ko la nga xam ne mooy ne dama nettali ko la ñu waxoon ni moom lañ ci doon wut. nee na mu ni ma loo leen doon digal ak loo leen doon tere. te ku ne xam ne li sëriñ bi digle ak mu tere. kon koo xam ne loolu da nga jàpp leneen lu dul loolu. ak sëriñ ba. ñoo bokk luñ leen digal bokk luñ leen tere. ñoo bokk luñ leen digal bokk luñ leen tere. bu ñu bokkee nag. def def ndigal bàyyi kër yi. bu ñu demee foofee. danañu santante. bu ñu ko deful. danañu jàppante téere baat ëllëg. te loolu it. te loolu it. alxuraan indi na ko. alxuraan indi na ko. ndax sabaa alladi aslam min alladina tabaw. nee na bis a ngi ñëw boo xam ne ni ña ñu doon topp danañu taxaw ni yéen ñi ma doon topp def naa ci yéen rek. voilà wala ba ñu jàkkaarloog mbugal ga. ñu di di doxal di diggante dog na. gaa doon toppee daal di wax. am ci ni bu nu dellu woon àddina de. kon daanu seet ci yéen. ni ngeen seetlu ci ñun tey. fekk yàlla da leen a bëgg a wax ni la ngeen daan def dara baax. mu ngi leen tey ne du yéen seen safara ngoog. nee na yàlla na si yàlla musal. loolu nag képp ku ñuy topp ak kuy topp. nee na nag loolu képp ku ñuy topp ak kañuy topp mat naa xalaat bu baax. moo tax koo xam ne nit dara jox boppam. jébbal la boppam. bàyyi mbiram yëpp ci yow. mu nee na loolu responsabilité bu rëy la. boo xam ni. bu fekkee awul fa mu war a aw. bu fekkee ni awul fa mu war a aw. loolee moo wax rek ci yow jàpp. loolee yàlla wax rek ci amal nag jàppante téere baat. mën na soo xam ne. mu ne am na nag loo xam ne. dara nu ko wax. mais eh, daal dara nu koy wax. daaw. ndax daaw. sëriñ Touba bi. mais da nekk na fi loo xam ne doxoon na diggante sëriñ Touba ak sëriñ bi man Thierno Birahim. boo gisee ma di ko wax. mais nag nag di ko wax. nit bu bisam dikkee. nit wax ci moom dara. wax ci moom dara. daf cay war a am. te ginnaaw bi bi tudd ceeb. bu xamal laa leen ci moom ci gëm sëñ bi at la. moo tax mu war leen a xamal ci moom digganteem ak sëriñ bi. nee na am na lu mu leen waxal daaw. nee na am na it yeneen yu ci am. nee na ndax bari na bari goo xam ne mëneesu koo tënk. dafa am boo xam ne. nee na dafa am boo xam. sëriñ bi demee ci géej. te sëriñ bi demee ci géej. dénk ko ginnaawam. di dénk ko ginnaawam. te rongoñ bi bari lool. te nee na rongoñ bi bari lool. sëriñ bi Mbacke Gede Jolof la la fi jóge. ndax sëriñ bi Mbacke Gede Jolof la fi jóge. dem ci géej. sëriñ bi jóge fa borom daaru. nee na sëriñ bi jóge fa borom daaru. ñu bisi ci réew mi. ànd ak njaboot. borom ndar ni ko. fekk borom ndar ni ko. turu Touba. turu Touba. bëggatuma dégg sama nopp turu Touba. yóbbu naa sëriñ bi turu Touba it bëggatuma ko fee dégg. dong yi yabal leen ñu ñibbi fañ dëkkoon. dong yi itam yabal leen ñu ñibbi fañ dëkkoon. loolu moo tax. loolu moo tax. ba mu demee mu dem Mbacke. ba mu demee mu dem Mbacke. sañ si guy guy ngóoraa. sañ si guy ngóoraa. Daarul Mannaan. dem sañ ci Daaru Manaan. sëñ baa ngi ci géej. nee na lépp booba sëñ baa ngi ci géej. fu ko dem. waaye fu mu fi dem. dafay defal kër boppam. dafay defal këru sëñ bi. denc fa yére ya. du jaxase waa këram ak waa kër sëriñ bi. du jaxase waa këram ak waa kër sëriñ bi. gis nga boo demee Daaru Manaan. nee na boo demee Daaru Manaan. fa borom dëkk war a dëkk. fa mu fa borom dëkk war a dëkk. jàkkaarloo jàkka ja. jàkkaarloo jàkka ja. foofa la defoon muy kër sëñ Tuubaa mooy kër gi sëñ Abdourahmane jox sëñ Fallu mu defaraat ko mu ne gi nga fa këram féete ci bëj tawal te nee na booba sëñ baa ngi ci sukk gannaawam la ko sañ gannaawam la ko sañ booba mën naa def dëkkam rek loolee nag loolee nag kër gi ci Tuubaa itam ñett xaw ma ñeent la fa bàyyi ci nit ñi wattu na ñett dafa bàyyi wala ñeent ci aw nit ñi wattu yére ya ba muy gisee nag ba mu ñibbisee rek. ba dikk daaru mën naan. ba dikk daaru mën naan. bay seet yére yi. bay seet yére yi. di seet ni mu fa bàyyi woon di seet yu sew sewaat yëpp fa bàyyi woon yëpp. ay daa ay xalimaak. lu demee ay daa ak ci xalimaak. wala soo def su mu mu def. wala def suukar wala warga. da koo def ci ay gaal. lépp da koo defoon ci ay gaal. ak yu sew sewaat yu mel yooyu. waxuma yu mag ya. waxuma nag yu mag ya. rongoñ jooju bari bari. ak li rongoñ ji doon bari bari. ni mu yàgg. ak at yooyu ni mu yàggee lépp. mu mu seet ko. lépp ba mu dikkee moom sëñ bi mu seet ko. nee na mu di ko seet di ko seet. nee na mu di ko seet di ko seet. yéen. yéen. ba yàgg mu ne ko. ba yàgg mu ne ko. nga xam nga soo demoon ma def fi danaa mën lii nga mën am déet. mu ne ko ndax xam nga boo demoon ma def fi danaa mën lii nga mën am déet. mu ne Thiel rek xam nga lu mu cee tontu. nee na mu ne Thiel rek ndax xamul lu mu cee war a tontu. mu ne ko. nee na mu ni dëgg moom sëñ bi ba yàgg mu ni ko. maandu la. damaa xamul lii maandu la. wala am loo jàpp la. ñi nga xam ne itam. nee na ñi nga xam ne itam. day ñu mu yoroon moom sëriñ bi. day ñu mu yoroon moom sëriñ bi. yolomal nañ leen. joxe digal ni mën nañoo dellu yolomal nañ leen. ñoo di ay soxna. loolee. am ci koo xam ne dañ ko koo bëgg a jox. moom maam Thierno mii. mu ne am na ñoo xam ne nii ngay sab ba ànd na ca loola. mu gànt. ni loolu du ko def. nee na loolee ba mu ñibbisee. daf ni maam Thierno. loolee de boo ko defoon. dana am lu yàqu loo xam ne dootul defaru xam nga loolu xam sëriñ bee tax. nee na loolu xam nga ni xam sëriñ bee tax. man nag. nee na moom nag ci xam-xamam bu gàtt ne. maa defe na dafa defe ni. koo balluloo. daf koo balluloo. li alxuraan wax yonent bi. li alxuraan waxoon yonent bi. daf koo balluloo. li alxuraan wax yonent bi. li alxuraan waxoon yonent bi. ca suuratul Ahzaab. ca suuratul Ahzaab. nee na. wa rasulullah nee na nekkul yellul ci yéen ngeen di denc soxna yonent bi ndax di abada ginnaawam faww kal indallah yaa may yëpp nee na loolu day lu rëy rëy la ci yéen ma yaakaar ni nee na mu yaakaar ni loolee moo tax nangu ko nee na loolee moo tax nangu ko woon ab saxaaba ci yonent nee na ndax ab saxaaba ci yonent taalibe mën na caa déggee taalibe mën na caa déggee diggam ak sëriñam fa la ko wéer nee na loola mooy la mu defee ni fa la ko wéer moom maam Cheikh wax na ko it ni ko nee na wax na ko itam ni ko ceerno ceerno dafay jong dafay dafay jonge jonge ci jëkk fas jonge ci jëkk fas nag ba àggul nee na moo tax mënees koo jot nee na moo tax mënees koo jot bi mu nekkee ci ayu digg moom tubaab bi itam nee na bi sëñ bi nekkee ci ay digganteem ak tubaab bi. wax na ni. wax na ni. Thierno mooy sama plantinoor. nee na Thierno mooy sama plantinoor. ci wépp am comme ni nag. mooy ab lantinooram ci ay wi. ndax kooku ay lantinoor. rek kooku ay doon lantinoor. nee na jëlul nag ak ci am na it loo xam ne. nee na am na it loo xam ni dafa xewoon bi sëriñ bi nekkee njaareem tubaab bi dañ ko wax ni ko tubaab bi dañ ko waxoon ni ko ci moom ni ko dañoo dikk ci moom ni ko nguur gi dañoo bëgg mu dimbali leen téeméeri junni nguur gi dañoo bëgg mu dimbali leen téeméeri junni moom la tubaab yi wax te booba te booba xaalis wute na ak bëri ko gerte bu neexee ñaar fukki dërëm lay jar. ndax booba bëri ko gerte bu neexee ñaar fukki dërëm lay jar. wala fi day daaw gis junni ak gis junni ñooyee. nee na booba téeméeri junni defee na ndax wala fi day daal wax li gis junni ak gis junni yem. ñu laaj ko ca téeméer booba. ñu laaj laaj laaj ca ceeroo nag téeméer booba. sëñ Touba. sa njaarim. seet ko ba yàgg mu ne leen. mu seet ko ba yàgg mu ne leen. li ñu ma digal day du loolu. li ñu ma digal day du loolu. gaa yi nag ñu dox diggante ak tubaab bi nag. ñu dox digganteem ak tubaab bi nag. jaaxle ca lool. jaaxle ca loola lool. naxanteeg moom. di naxanteeg moom. xam nga ne am na ñu doon ñu mën a layante yow. ndax xam nañ fañ lay aw. nee na ndax nit ku nekk am na ñu xam fañu lay aw. te xam nañ ne sëriñ bi alal defu ko muy dara. te xam nañ ne sëriñ bi alal defu ko muy dara. di ko sànni ci géej. ndax kuy fab alal di ko sànni ci géej. ak di gas pax di ko ca sóor. ak di gas pax di ko ca sóor. këram lakk ñenn ñi fab di génne moom muy fab di yóbbu ca sawara këram di lakk ñi fab di génne muy fab di dugal ci sawara yi nga ne alal daal ko soxlawul alal koo nga xam ne ni soxlawul alal wax ne lii da ko yàlla digal daf ni lii da ko yàlla digal ñooñee nag ñooñee nag dina xanteeg moom dina xanteeg moom dina xanteeg moom ñu leen kon nag dem leen ci kër gi ba mu ni leen kon dem leen ci kër gi wàññi ko ko jox leen ngeen wàññi ko ko jox leen ñu wàññi loolee jox tubaab ñu wàññi loolee jox tubaab ba mu ni gannaaw ba nag mu ni li de dafa am na fi loo xam ni gii day am na si loo xam ni bu ko ceer na fekk woon am bu ko ceer na fekk woon du am waaye nag waaye nag ñu a wax ba mucc ci ñu wax ba mucc ci ñoo dimbali ñi ko fi def xam ne moom kon day wax ni li wax rek li ko yàlla digal rek la ñuy def wax ne rek yàlla digal rek la ñuy moo tax mu ni kon bu ko fekke woon am nee na loolu nag dafa xam ne rek bisam ñëw na. mënees cee ñàkk wax dara. ma ma waxoon rek daaw. nee na ngir moom la ma waxoon daaw rek. suufee wut. suufee wut. ba ñu aajo woon di ko yëkkati. réeru itam. réeru itam. ko feeñ. bañ di ko feeñal. rawatina koo xam ne day askan ci moom. rawatina koo xam ne day amee askan ci moom. loo wax. ndax loo wax. waaye da nga yëkkati sa bopp. day mel ni da nga wala nga yëkkati sa bopp. waaw kon da nga wax ne te alxuraan nee na bu leen di sellal seen bopp. wala mu ne ñàkk sa bopp ku la lang lang la ko gën. nee na wala nee na ñàkk sa bopp ku la lang lang la ko gën. waaw nag ginnaaw bisam. waaye nag ginnaaw bisam dikk na. wax ci moom dara rek mënu la ñàkk. nee na loolu rek a tax mu doon lu ci ñamal loolu.